Paris. mbir mu yéeme xew démb ci gox bi di Mamel ci ndakaaru dib colonel douane bu fa faat kenn ci seexam yu jigéen tolloon ci juróom-benni at observateur xëyee ko teg ca ne moom Mouhamed Sall dafa am nag ay jafe-jafe xel ca sax ginnaaw jéey ji mu ngi ñu entré ci hôpital bu Fann soxnaam it naka noonu ndax choc bu mu ci jëlee yéeni kaay bu groupe Futurs Médias ne moom douanier bi ba ko gendarme yi jël seelam leen doon wax mooy bu ma leen expliquer sax du ngeen comprendre ci yéeni bi di libération ñu jàng ci lenn ci kàddu yu douanier bi ginnaaw jéey ji mu ne da doon di dóor doom ja waaye nag xamul lu xew ginnaaw si seytaane dugg ko ba yëf yi ëpp loxo yéene kaay bi ne dóor yi nag métti na ndax bopp xale ba la dóor ca lavabo kër ga lavabo bu sax dafa toj yi morso yaay ja diggu gune ga bëggoon a xaru seexam bu jigéen moom ñu ne mu ngi ci naqar ak tiis wu rëy la tribune xëy na jéey ju mag ca mamel akub colonel bu fa rendi doomam bu jigéen vox di diñu xamale nag ak douanier bi mooy chef des sections d'écriture bu douane bu mool 2 poram Ndakaaru moom Mouhamadou Sall ñu ne jafe xel nag la am magistrature bu Sénégal ak i jafe-jafeem yu ci gàttal justice bu Sénégal wu ndaw ci xëy yi mu jàpp ne fa justice bi ci Sénégal mooy ci ne wóoluwunu kuréel gu mag gi leen yilif di conseil supérieur magistrature procureur Aliou Ndaw dafa mel ni sax ci gis-gisam danoo am beneen justice bu wuuteeg ba woon ci réew mi rafetluwul nag jàppante yi magistrat yi di juge Amadou Dia ak juge Ousmane Kane Aliou Ndaw ne magistrat di siège buy conférence de presse guléet mu gis lu ni mel le témoin xëy jàpp ne magistrat yi Sénégal léegi daraja ji woon dafay ruus ndax ñagas-ñagas yi faral di am saa su ne ci biir Sud Quotidien quotidien jàpp ne justice bi ponkal mu wopp la dëgg ak coowal magistrat yeeg mbiri grâce présidentielle enquête xëye gëstuy ci li lalu nag ci suuf xare bi ci biir magistrat yi kenn ci ñoom magistrat yi ci yéenekaay bi di leen dénku ne mën a yëf yi nag du lu bette lu ñu mënoon sóoraale la yooyee réeroo yéenekaay bi jàpp ne lépp nag nepp xaajaloo loi bi ci wàllu alatrat gi moo ko waral yokkal ñee bañ a des ca sax seen biir da ca am kumba am ndey ak kumba amul ndey ci lu laluwul sax ci at dañuy des ak justice bu Sénégal diggante bu ñagas bi di bu ministre Malick Sall ak waa quotidien ne moom jëwriñ ji nag dafa mel ni ma nga yàbbis lëf ca la mu sexoon wàllu wér-gu-yaram observateur xëy dalal directrice de la santé soxna Marie Xemes Ngom Ndiaye wàllu garab ga bawoo Madagascar di covid organique bi mu ne boobee produit ña nga ca gëstu yi ca def na nu ci ay jéego ba mu jaar fa mu war a jaar yépp ba nu sopparñi ko doomi garab waaye nag joxagunu ko benn malaat fi nu toll mooy ci copparñi gi xool ndax du ànd ak posenam déet ak it gëstuy mottali yu xool ci ban degré la mën a rey virus laata ñu koy jox nit ba fii ñu toll mu ne test yi ñu ngi ko def ci jinax garab yi cosaani Sénégal it am na yu jël ci gëstu ci kàddu docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye lu ci mel ni bu ñu duppee lion vert te mu amit artémisia ca biir coronavirus bi nag di law ci réew mi docteur Marie Xemes ne li ko waral bokk na ci ñàkk wàccoog dogali fagaru yi ñàkk gëm gi ak it boddi gi ñuy boddi ñenn ci amee jàngoro ji ca nag jàngoro ju amul ñàkk amul garab moytu rek ak geste barrière yi mooy li ca war beneen jàngoro di pandémie di bu dal Sénégal ci wàllum suuf waral le quotidien ne pandémie foncière ci réew mi ak juróom téeméeri hectares yoo xamante ni coowa ca lalu di contentieux xayma la tukkee ci directeur bu ONG Action Aid Zakaria Sambaxe yéenekaay bi cadre de réflexion et d'action ci wàllum suuf ci Sénégal di sàkk ñu amal yeesal yu xóot ñeel yorinu suuf ci réew mi ginnaaw réero yu bari yi nu fi nimiku ndengeleer tóobeen bon de filao ci Géejawaay ngéeñeen Corniche Ouest Foire des Mamelles ak yeneen kuréel gi ne ay yeesal rek moo ca mën a indi saafara yeesal yuñ dugal boole ca ñëpp ne ay acteur bañ caa ber kenn ancien ministre de la santé Abdou Fall di gànnuk yéenekaay bi di laas yorin ak xeexinu jàngoroy coronavirus ci Sénégal moom résultat yu baax yuy sagal suñu réew la ci gis méngaleeg mu ne ak li xew feneen fa mu ko wér di limab ñi ci faatu ak li nga xamante ni mooy limu ñiy wér boobaak léegi terewul nag mu ne bu nu wàcce loxo yi nañu yokk pasteefu gi ànd ak dal ak it sago rawatina bi nga xamante ni kenn xamul kañ lay jeex ji jàngoro xew-xewu diine yi nu dëgmal nag mu ne nañu rafetlu bu njëkk kilifa yépp ni nu àndee maase wuy ji keroog woote président ngir xeex be coronavirus kilifa diine ca Tuubaa Mbàkke it mu ne rafetlu na bu baax ni nga xamante ni noonu la ñuy ñaaxe boobaak léegi eh, taalibe yi ci wàccoog geste barrière yi ca mu ne it mën na doon occasion ngir ñu daal di jógloo ñëpp boole ci waat askan wi ci xeex bi mu daal di doon nag ab yëgoo leneen lu Abdou Fall waxtaaneeg las dialogue national bi tolluwaay ca Mali Côte d'Ivoire Guinée Sénégal ak waxi troisième mandat nag moom ancien ministre Abdou Fall ne bu ko ca kenn waxloo ndax dafa dogu ci ne du ca wax lu may danoo yegg ci législative ca fii nu toll mu ne amalagunu màggalagunu sax premier anniversaire wotey président yëfi woon kon bu ko kenn waxloo ci présidentiel yeneen ca fii nu toll duy local duy législative nañu sëgg mu ne ñoom ci lépp loo xamante ne mooy liggéey yi fexe ba jëmmal diggeek programme yi seen mbër digoon askanu Sénégal ngir ñëpp gis ci seen bopp. Savon Marseille Alfé